fekkente ne lim li mu def li mu li mu xeex fi président Ablaye Wade. Hmm. génn ci biir mbedd yi. Hmm. dem ci média yi. Hmm. ne lii du fi amee wax ne conseil constitutionnel waaw ñi may na leen ay terrain. pour soppi kii nangam kii dafa bëgg def forcing. dem sax moom président Macky Sall ba ne léegi julli gi juróomi ra ñaar rakka la. rakka bu njëkk bi juróom la bi ci juróom ñaar la kenn du ko def ñett nangam. joxe fi ay exemple ah, dem ba ay feneen fu ne mu wax ko fa ah xeex loolu. ba noppi dem moom ci boppam ci làmmiñu président Macky Sall de kenn waxul. Hmm. moom moo ne man maa ko verrouillé te fexe naa ba nul ne peut kenn mënatul nangam def nangam hmm. su dellu si waatee la mu wàcci waatoon mu lekk ko ma xam ne Macky Sall mii jëmm jëfi nekk waaye du nit te ne lim li mu def. li mu li mu xeex fi président Ablaye Wade. Hmm. génn ci biir mbedd yi. Hmm. dem ci média yi. Hmm. ne lii du fi amee wax ne conseil constitutionnel waaw ñi may na leen ay terrain. pour soppi kii nangam kii dafa bëgg a def forcing. dem sax moom président Macky Sall ba ne léegi julli gi juróomi ra ñaar rakka la. rakka bu njëkk bi juróom la bi ci juróom-ñaar la kenn kenn du ko def ñett nangam. joxe fi ay exemple ah. dem ba ay feneen fu ne mu wax ko fa. ah xeex loolu. ba noppi dem moom ci boppam ci làmmiñu président Macky Sall de kenn waxul. Hmm. moom moo ne man maa ko verrouillé te fexe naa ba nul ne peut kenn mënatul nangam def nangam su dellu si waatee la mu wàcc waatoon mu lekk ko hmm. ma xam ne Macky Sall mi jëmm jëfi nekk waaye du nit.